Ça veut dire ce que ça veut dire. Effectivement. La, la rédactrice en chef de Leral TV man maa wax et j'assume mes propos elle a démissionné parce que dañ ko binduloo wax loo ko ne daf ko c'est un homme ah bon. c'est une dame. c'est une dame dañ ko bañ. Hmm. et la dernière fois qu'on s'est entretenu au téléphone nuitamment nénama, na ma ay borom ben ben forge bu moi moo top. ñetti fan benn Tmax si du ko topp ñuy toggante ba yàlla def li muy def benn camion fiir borom moto ya barki dem hmm? waaw barki Serigne Touba. même coordonnateur ñooñu commencé di wax commencé juger avocat yi déchaîné wu ba avocat Sonko yi bind Moustapha Niass su ma demee dégg ni yaa ngi ci télé wax ne que man dama la ne dañ ma binduloo article ci Sonko. je jamais dit ça. ah baax wallahi je ne commettrai jamais cette bévue. ah amul sens sax. waaye mu ngi ci vidéo bi de il faut nga dindi ko de il faut nga justifier loolu. Xawma na nag kenn fi mu toll nii naka laa war a def. bàyyil ma xoolaat ko. je vais t'envoyer bom ma ci xam dara lépp lu